ay junni junni doomi aadama daal dinañ teew ca jàmmalaay guddi àjjuma yem ak fukki fan ak ñett ci weeru mars atum 2020 ngir comme ni ko kilifa yi sàkk woon ñaan sunu borom jële fi balaa bi nga xam te ne dafa daal di law ci àddina bi muy feebar bi di coronavirus bismillahi rahmani rahim alif lam ñu daal di fa wàccee kaamil laata shérif Mouhamadou Lamine Laahi ànd ak rakkam shérif Mame Libaas Laahi di teew nag bi fukki waxtu ci guddi di tegal fukki minute. Chérif Mame daal di jàng xatmu bi magam ju tedd ji di Chérif Mouhamadou Lamine Lahi yëkkati kàddu jëmale ko nag ci solo bi nga xamante ndaje bi daal di koo am. dafa am luy daw ci jamono. ñu ñu tudde ko feebar. yonent bi ne. yonent bi ne. li na. nee na. jàngoro joo gis. jàngoro joo am na saafara. am na saafara. waaye noonu mu waxe noonu. waaye noonu mu waxe noonu. ñu jang ci ne ñu jang ci ne safar bepp febar nak sa saafara bépp febar, alquran moy alquran bala nga xaar ne bala nga xaar ñu naan am na ñu lu kay faj ñu naan am ñu lu kay faj te lolu ken xamagul kañ lay ñew te lolu ken xamagul kañ lay ñew te yalla waxal bopam ne te yalla waxal bopam ne defna ko muy shifa ci yeen defna ko muy shifa ci yeen wa wa rahma gis nga wér gaa ngoogu loolu mooy wér gi nag mucc gaa mucc gaa ngi noonu ànd ak i xéewal ànd ak i xéewal kon alquran bi ñu fi jàng ne alquran bi ñu fi jàng yal na nu ko yàlla nangul yal na nu ko yàlla nangul te defal nu ci loolu te defal nu ci loolu amin yaakaar boobu nu am na ne yaakaar boobu nu am ci alquran ci alquran am ka am ka ci place bii ci place bi mu tudde ko mu tudde ko jàmm yàlla jàmm yàlla yàlla ne wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum xas xam nga fitna ne xam nga fitna mooy contraire jàmm mooy contraire u jàmm fitna ji ñuy daw nag ne fitna ji ñuy daw place bii ñu dugg palaas bii ñu dugg. mu tudde ko jàmmi yàlla. mu tudde ko jàmmi yàlla. yàlla nay sunug raw. yàlla nay sunug raw. ne yàlla nañ fi yàlla sottil jàmm raw ba àddina bi yëpp raw. ñuy joxe dog yi sunu paree. ci lañ daal di joxe dog yi daldi di ñaan borom bi mu taxawu àddina bi yëpp nag ci feebar bii di coronavirus laata nag Chérif Mouhamadou Lamine Laye di wax ci li jëm ci appel bi. العافية آمين sang bi nee na xam naa. ku ne yaa ngi bàyyi xel. ku ne yaa ngi bàyyi xel. ci lii nu dëgmal. ci muy appel bi. muy appel bi. ba fii nu toog de. ba fii nu toog. décidé fomm appel bi. xam naa du laay ni rek a fa ni fu ñu ooteeg fu ñu wooteeg ñaan jullit yëpp daw jullit yëpp daw fekke ñaan fekk ñaan bi ngir yaakaar a mucc ngir yaakaar mucc ñi ñëw ak ñi ñëw ak ñi amoon yéene ñi amoon yéene ñëpp ñëpp yàlla na ñëpp mucc yàlla na ñëpp mucc yàlla na ñëpp mucc yàlla na ñëpp mucc feeg bés ba nag feeg bés ba nag ah, njortu lu rafet. ñu ngi njortu lu rafet rek. waaw ñu ngi njortu daal lu rafet rek. yàlla dene ba si daal dara waroon a amit na daal bu ci dara waroon amit te yàlla ne loolu la te loolu la yàlla dogal te loolu la yàlla dogal boobaa nun kilifa yi boobaa ñun kilifa yi njaboot gi njaboot gi ñoo ciy waxtaan ñoo ciy waxtaan décidé la ñuy décidé la ñuy waaye ba fi ñu toll waaye ba fii ñu toll xalaatuñu ko xalaatuñu te bëgguñu ko te bëgguñu ko yi ñu ñaan rek borom bi daal di nangu ñaan yi nga xam te ne yooyu lañ daal di amal te jàmmalaay bu yof laayeen